Thank you. الذين آمنوا وأمرت لأن Allah. Allah. Amen. السلام need. تعالى من يداك تيار مان ديالا بسم الله الرحمن الرحيم يتوري في الوقت تولي تولي يالا مماغ متي أبري يار مان دي وصلى الله على سيدنا محمد يالا يالا دولي سيسن سنك بمعمد وسلم تسليما ومسل ومسل الكت الحمد لله الذي هدانا لهذا نسانت يالا من يجبل شدينا جتاتي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن من جبل سنو باب سنو يالا جبل لون واشهد ان لا الله وحده لا فتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جامام لا بو بي لا تان يوني كو سي مبولم الله اكبر يالا ماغنا الله اكبر يالا ماغنا الله أكبر كبيرا مغنا والحمد لله كبيرا سنت سبحان الله بكرة واصيلا يا عباد الله

وكنتم على شفا حفرة من النار تخوان ين تبون تب سفر بود بك دان كتير نب سفر غير نونو أكح فأنقذكم منها يا لقيت اللي نش أيوة كذلك يبين الله لكم آياته نلا يلا ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وان الطائفة من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما جوغلين يان تاخاو ديفار سين ديغال اي دي جام فين بغى احداهما على الاخرى كان كان غري ناك نك باي توغ يا كو كنان كا ديكو توغ قاتل التي تبغي كيخلي ناك كيغا خامن موم مو بيو دي توغ يان جوخ باي كو ريك حتى تفيا الى الامر الى امر الله دم ديلو نانغو اتيب يالا ني اتيكو مو دوخ وإن فاءت فأصلحوا بينهما بدل با سوكو ديفار با ديفار كا ام جيرين فأصلحوا بينهما بالعدل ديفار سين نك سي ماندو جوب بو فار فار لو ام واقسطوا ماندو نك إن الله يحب المقسطين يقول إنما المؤمنون إخوة يقول فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

mu ne seen deret ak seen alal ak seen der yi yëpp araam na ngeen tuurante ko tooñante ci ni mu araamee ci bési noonu la araamee ci mboolem bési bés bi mooy présenté mboolem bési àddina bi wa shahrikum hada ni mu araamee ci ween wiir noonu la araamee ci mboolem mooy présenté mboolem weer yi wa baladikum hada araamee seen dëkk bii di màkk noonu la araamee ci mboolem dëkk yi moo présenté mboolem dëkk yi kullukum min aadam yéen ñëpp ngi bàyyi ko ci aadam muy seen maam wa aadam min turab aadama yàlla nga ci suuf لا فضل لعربي على عجمي العرب جنود كل العرب ولا لعجم على عربي انا كل العرب كانوا العرب تام ولا لاحمر على اسود كويخ كانوا الكنيول ولا لاسود على احمر كنيول كانوا الكويخ الا بالتقوى شرقل يلا جيف جباخ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولان انيان ولا تدابروا ولان كناو ولا تقاطعوا

وعليكم بالسمع والطاعه ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ñooy àndandoor ñoo jara àndal dalika alfadlu min allah dégg nga ne la xam yàlla koy defal ab jaamam wa kafa billahi alima yàlla day doy na ci moom xam-xam moom peeg mboolem lu ñu xam wa man yuti allah wa rasulahu faqad faaza fawzan azima wax yàlla jubal ko ak yonentam bi kon day texe nga texe àddina ak àllaaxira gu màgg a màgg

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد julli gu ànd ak mucc yal na nekk suñu sang bi Muhammad wasalaatu wasalaamu ala rasuli lmustafa na nekk suñu sang bi nga xam moom la yàlla tànn di yonent bi wa rasulihi lmurtada yonentam bi nga xam ne gërëm na ko gërëm léppam wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala walam ñoñam ak i sahabaam ak képp ku leen roy amma baadu gannaaw loolu yaa ngi jaam yàlla yi wa ya ibadallah yéen jaam yàlla yi i'lamu yarhamukum allah yal na leen yàlla yërëm yërëm ñëpp

والتصبيح والتكبير دي سبال يالا ديكو كبر ديكو الله أكبر والتحميد والتهليل الحمد لله لا إله إلا الله والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بارل نيان تي بس بي بسم نانغو نيان لا أكبر الجل تي بي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله فيه خيرا كثيرا للعباد والبلاد يا يالا تي بس بيغا nga دي du غانتو gantu kenn كو نيان جامو جو باري نيال ñal rew mi ñal ñu ko té rew mi ak adina bi innahu eidul kabir moy يدو عيد الأضحى ياتي تبسكي والسنة أبيكم إبراهيم سنة سنة باي إبراهيم والأضحية سنة واجبة تبسكي ناك سنة لبو خمنا وارنا على كل من استطاع من المسلمين يبقى كمان سجلني وهي شاة تذبح وقات بني راندي ضحى يوم العيد ويتقرب بها إلى الله تعالى وقد ضحى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضوان الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعن عائشة أم المؤمنين

كان الواحد منا يضحي عنه كان شنون دان تبسكري بن غات وعن اهل بيته بشاة هنا جبابم اكواك جبوتام يب ولا يب ولا يباع شيء من الاضحيه تبسكنا دون جاي دارا لا لحم ولا جلد ولا غيره وإنما يؤكل منها ويتصدق بها وتوجه المذبوح الى القبلة وليقل الذابح بسم الله الله اكبر فاذا زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فذلك حسن واسع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 ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجعل بلادنا غامبيا بلدا امنا مطمئنا يا تارس بار قدم من كل مكان ونجنا من كل بلاء وخلا وتعاون وسنا ووباء من جميع ذلك بلادنا خاصه بلاد المسلمين عامه بحرمه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق القادر لما سبق الناصر الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين yal na yàlla nangul ñu julli gi amiin yaa rabbi yal na yàlla dimbale képp koo xam ne dimbale nga islaam amiin yaa rabbi yàlla sàmmal ñu njiiti réew mi sàmmal ñu réew mi sàmmal ñu nguur gi ak diine ji sàmmal ñu kilifa yi aada ak kilifa yi njaboot yëpp njaboot gi yàlla sàmmal leen teg leen ci siraatal mustaqim yal nañ am jàmm ju sax daayiman yal na ko suñu dëkkandoor am yal na ko addina bépp am yal na yàlla nangu lépp gërëm na ñëpp teraanga yëpp egsi na ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yal na nekk ati jàmm jërëjëf waaw président nag utu na julli ñëpp ci tabaski yi waxoon Bye. concern, we should reunite. Uh, and also I will call on all Gambians. a day that we should be very, very happy. So on that note, on my behalf and on behalf of my family, I congratulate the Gambian people and extend uh, my message, goodwill message to everybody uh, so that we will be here again next year, inshallah. Just briefly in the local language, Your Excellency. I know many Gambians are watching and would like to hear what you have to say in the local language. Sise, bimulunere lumbalombi, muslumola ko no. bilimo lunere duwa jaabi luŋolom woto mbaafula gambiyankol ɓe me kafu nga duwañim banko e nga duwa eh, muslim be nga duwa dunia ɓe wayi eh, duniya ɓe bata baale kono mbe tembo men kono ande muslim ono jiko menti wolom ñinti duwati woto nga duwa banko e assalamu aleykum Nimi Gini Patmos bu ñu xasee ba rey li nga xam ne moom moo nekk xar mi ku ci yi fi nga Banjul yow tamit sa sa tabaski sunna bi nga xam ne moom lañ ciy xaar pour nga dinañ ci xel kon la comme ni ñuy waxee ak yéen nii gis ngeen ngi xaru imam ratif moom la ñu rey ba pare président mu ngi na le ba seen i mën a wàññi téye njiitu réew maa ngi noonu di dellu. ñu dellu State House moom njiitu réew mi His Excellency président Adama Barrow moo ngi noonu di ñëw dugg ci motom bi ngir wuutali fi nga xam ne mooy dëkkuwaayam muy State House waaw gis nga jawriñ yaa ngi noonu muy ministre si ministre si lay saafuwanteeg noonu gis nañ ministry of Communication and Digital Economic mu ngi noonu Minister of Finance and Overseas Trade Minister of Foreign Affairs ñooñu ñëpp tey ñëw nañ julli ak uh, njiitu réew mi fii dégg nga mu ngi saafuwante ak ñoom mu ngi waxtaan ak ñoom moom His Excellency President Adama Barrow mu fas yéene dellu ci dëkkuwaayam di State House ñu ngi noonu. ñu ngi noonu gis ngeen convoy baa ngi noonu ba tey njiitu réew mi dugg na ci otom mu ngi noonu dugg na ci otom yéen a ngi ànd ak ñin ba tey live Africa TV njiitu réew mi président Adama baro julli na ba pare fii ci King Fahad Mosque ñu war a utali State House muy dëkkuwaayam buñ fa yeggee moom tam mu def sunnab li nga xam ne mooy rey xaram muy xaru tabaskim kon gis ngeen noonu convoy bi commencé na alam pour ñu wutal fi nga xamne mom mo nek State House ñu an Africa TV Pan African TV ñu ngi fi ci King Fahad mos Banjul tey ñeneen ñeenti fan wéru julaay Mo bés tabaski mu war a wutali dëkkuwaay foofa ca Banjul wax naa leen ko أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ci ginnaaw la ñuy jullee mu ngi noonu jigéen yaa ngi wane seen ci moom قل الله أعبد مخلصا

والذين اجتنبوا تاغوت أن يعبدوها الذين يستمعون القول فيت مو عمل ني سولو بوك تي بيس بوغا خامني تخاواي بي دي اج بوك تي جيرومي بونكي الاسلام ييغا خامني جوليت بو ني امنا يينم ngir matale ko dem ziaré sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam aj kafara def lépp lu jëm ci taxawaayu li nga xam ne mooy àcc démb doonoon taxawaayu arafaat foofa ca makkatal mukarama tey jullit yëpp ci biit réew mi ñu ci bari ñu ngi def seen taxawaayu tabaski taxawaay baa ngi noonu ñu ngi dem duggi State House ñu ngi wutali fi nga xam ne mooy hôpital bu mag bi buñ ci jógee rek dugg ci State House dem yegg ci këru njiiti réew mi muy State House fi nga xam ne képp ku jiite réew mi foofu mooy doon sa dëkkuwaay. njiiti réew mi président Adama Barrow juróomi at yi weesu moo jiite réew mi juróomi at yi nga xam ne moom lan ko falaat tey jii mooy taxawaayu tabaski bi jiitu ci jiite bu nam namm jiite waat yeneen juróomi at réew mi Young ngi koof hotel wutali State House inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له العذاب ثم

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأن Atanò la naf toatrata la farat ton fi jombil lawa eko. Nominè M Chi National A Assemblye vi bòkana ci Degation B. national campaign manager bu NPP Lamine Cham njiitu réew ma ngi wara xaru tabaskim chief of protocol minister of public service ñep ñu ngi ci délégation bi ñu ngi fii ci State House gis ngeen xar maa ngi noonu xaru laadum la ñu ngi koy tër ngir war ko rendi deret bii bokk na ci sunna bi nga xam ne lu nu soppala ci bés bii muy bési tabaski ñoo ngi noonu ñoo ngi rendi xar mi muy xaru tabaski jiitu réew mi président Adama baro moom lañ nekk di rendi ñadd nanu ko ñu ngi koy rendi ñu ngi koy rendi waaw xar maa ngi noonu na li ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسجد وللمتكبرين وينجي الله الذين اتخوا بمفاتيح